Heavyweight.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 <laughs> waaw góore waay waa ji mu ngi wuyoo ci seen jëng ñu koy dàqantelee Baay Faal ne ñu sa waajooju daal bu xëyee day jël këlam dem majali lum ca am jëndee ko sàngara mbaa yóbbu ko ci jigéen ñi jaay seen bopp ëskëy ne ñu lépp ci fi mu doon fréquenté mooy wakaam ngor yoof yenn saa yi mu dem mbuur ca sali bi ñu ko présenté procureur nag mujj nañ ko defeere ca parquet di ko toppee li ñaan faat nit ak sàcc waa ji nag li ko daane mooy bi mu faatee ndaw si ba noppi dafa sàcc téléphone am daal di koy yóbbu jaayi ca marché ba waaye ak xarañteefu enquêteurs yi fexe nañu ba loqati ba gis waa ji mu ko jaay te ñi doon wax ne ndaw si dañ koo jam paaka enquête bi li mu wane dëgg-dëgg du loolu enquête bi daal li mu wane mooy ndaw si dañ koo xoj ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ay waay soxor ma ne ki ñu njort ne moo def njombe lay wax de sa nee na bi muy ñëw ci kër ndaw si man di ba ne tat la def laa wax fekk boobu fayoon na ndaw si ñaari daanu mais bi ñu ñëwee ba ñu seq benn daanu naka noonu muy waaja ñaareel ci la ndaw si lànk ba tëdd ci naaj bi nee na ñoom ñaar ñu jàppante xeex mu dóor ko ay coup dal di koy xooj ba mu faatu mu jël téléphone am dem jaayi ko waaye yéen kii nit la ma ne li ci gënee ti doy waar mooy ci kanamu enquêteur yi waa ji regretté wul ci li mu def dara la wax ma ne Sénégal bari na ay jëmm yu dox waaye du ay nit moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax affaire ndaw si di jaay na ba nag mu ngi lëmbee réew mi laa wax ndax jaay fi mu ne nëbb nañ ko jant bi te li tax ñu nëbb ko jant bi jëkkëram ji di médecin moo ko porte plainte ndax yoo nee na jabaram jooju def koo filmé ba noppi di ko santage ay waay waay waay yëpp naa def nag waaye cay na ba nag ne li tax mu filmer ko jëkkër ji da koo dëkkee doon dóor nee na ci door yooyu ko jëkkër ji doon dóor sax plaintoon na jëkkëram ca parquet bu Matam waaye plaintam boobu furas dalli xëddeen mujjul fenn moo tax fi mu ne organisation ñoom ñëpp jóg nañu taxaw temm ngir taxawu Jaynaba moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw korona la wax jëmm nag li doon lal néegu sëy yi mbëggeel dëgg moo ko doon lal waaye nag sëy tay intérêt kottu kottu moo ko lal góor ñu bari dañuy xemmem moom daal romb leen jàggar jàggar am noo mel rek ñu daanu leer daañu wax amul mel nu ñu melul yor lu ñu yorul kàcc ak kàcc ba am la bu ñu jotee ci yow daal di wane seen vrai visage bu ko defee bonjour les dégâts waaye tamit jigéen ñi kenn demul ñu des de jigéen ñi tamit koppar kottu la ñuy wër ni bëy di wëree ñaax moom daal amal xaalis rek ak noo ko mëneeg foo ko mën a amee boo sëqatee ñu ne yaram kalaw moo tax léegi góor ñi ni ñu tijjee jigéen ñi mooy argivore moom daal yoral rek loo joxoñ ñu dagg foo bëgg ñu dem loo bëgg ñu defal la moo tax it réew maa ngi nii réew mi daal man man man dinaa génn seen Sénégal gi de mu doonoon seen xibaaru buzz dig dajo beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz